ñuy ndàmp la nga xam ne moom la ñu jënde woon sunu ay terrain ndaxte lii nga xam ne moom la ñu teg askanu Gandon nga xam ne ay njaboot tëli bi dafa jaar seen digg séparé leen ay famille yoo xam ne ñoo daan àndandoo bu añ jotee ñu teg seen bool añandoo loolu lépp nee na forage autoroute bi yàq nag gannaaw nag autoroute ba dañ ko fi def dëgg la pour yombal dem beeg dikk bi waaye aussi autoroute la buy jël dugal xaalis ndax ku fayul xaalis doo daw ci autoroute boobu donc c'est une autoroute privée gannaaw dañ ci doon wut alal ñu nit nan ñu fay alal ji nga xam ni bu buñ ñu ko fayee daan ko mën a jël daal di mën a wuti kër daal siy dugal sunu njaboot. trois ans ñoo ngi toog di muñ chaque jour ñoo ngi ñu wax tey di ñu wax suba Ousmane Ndiaye daw na si ba sonn ñi nga xam ne ñoo tabaxoon am na ñu ñu jox am na ñu ñu joxul waaye ñun ñi nga xam ne ñoo yor terrain nii li kenn joxuñu dara. kenn joxuñu dara ñoo ngi wax tey suba gannaaw suba ñu xamuñu si dara ñoo ngi toog rek di xaar léegi nag ñuy ñaan sonn nañu tàyyi nañu suñu njaboot ñoo ngi nii di leen luyeel amuñu fu ñu leen dugal nan nu jàppale te yàlla tax ñu jox ñu suñu alal parce que suuf amatul fii munoo am tey xaalis ba jënd fi terrain parce que liñ doon jënd terrain léegi amatul kon nag nan nu jàppale ñu jox ñu suñu ay kër ñu jox ñu jox ñu suñu xaalis ñu jëndi ay kër dugal si suñu njaboot yi parce que ñoo ay jaboot lañu te foo foo jaboot boo gis góor jigéen moo ci gën a sonn ndax jigéen fu mu xëyee mu ngi wutee développement doomam mu ngi dugg di génn di lijjanti doomam pour nu mu avancer pour nu addina baaxee ëllëg loolu nag ñun dañ ci ah. sonn dañ ci sonn ngeen jàppale ñu lu ngeen mën ngeen jàppale ñu ñun jigéen ñi sonn nañu torop góor ñi sonn nañu mais jigéen ñi sonn